mangoog ñu ngi koy jaajëfal amadu Issa Kane mbokk yi ci noonu ñu jukkil leen xeetu yéenekaay yi fas yéene ko door rek Walf Quotidien yéenekaay bi jiitu ca fajar mu ngi ñu dégtal assemblée nationale ak euh, fitna ga fa jolli fan yi ba jur euh, daanaka jafe-jafe euh, ci soxna si di Amy Ndiaye ñibbi am ci ñaar ci ay député yu yu yu ko bunduxatal ca googule assemblée nationale fitna googe nag la njiit réew mi Macky Sall ne na nag na dakk ca na mu gën a gaawee ba tax na sàkku na yoon def liggéey. liggéeyam euh, sas nay tamit euh, nguur gi rawatina première ministre ngir ñu jël ci mattuwaay euh, ba assemblée nationale fitnaak naka sudul noonu dootu fa amati mu ngi ci Walf Quotidien li am ci suite boote ba léegi pënd ma wureegu ca Adji Sarr ak Ousmane Sonko gannaaw seen jàkkaarloog doyen des juges ca bureau ba démb aji Sarr jot na amal ay kaddu yu mu jot a rotal ci googu lépp dossier xam le ne dong moo ko ñor maanaam procès public procès goo xamante ne a ngir mu leeral li xew ci digganteem ak Ousmane Sonko euh, te xewee ca suite euh, beauté mu ngi ci Walf Quotidien yéen a bi di l'observateur mu ngi ñuy dégtal xëy tey dugg ci kaso yi waxtaane mbirum banditisme ak i tamit la fay xew ci yooyu les kaso euh, bokk na ci tamit ñoo xamante ne caabi da leen fay féete ginnaaw waaye nag la ñuy nas ay pexe Eh, ba taxawal seen gang ba saay bu ñu génnee kaso am yeneen jee yoo xamante ne mun nañ koo defaat eh, yenn ne sax boo jëlee ñooñee téeméer yoo ca jël juróom fukk yaak juróom benn yëpp mos nañoo dugg kaso eh, yenn cabinet xëy duñu ko leeralal ci xëtam bu njëkk Adji Sarr ci l'observateur procès public la yittewoo ci ci wàllu suite beauté mu ngi ci l'observateur yenn cabinet di réew mi quotidien xëy duñu dégtal lu aju ci li nga xamante ne mooy euh, Kalidou euh, Fadilou Keita bu Pastef ma teg loxo euh, gannaaw bu mu tuumale nguurug Sénégal ne loxoom génnul euh, ci réerub Didier Diatta ak faatub Fulbert Sambou moom Fadilou Keita xam ne ne gendarmerie xam na ci dara yéen cabinet ci noone lañ ko tegee loxo yéen cabinet xëy duñu ko leeralal ci xëtam bu njëkk ci réew mi quotidien l'indépendant ci xëtam mu ngi ñuy dégtal ñaari député yi nga xamante ne jot nañoo daanaka fitnaal ki nga xamante ne mooy Amy Ndiaye Gniby eh, ca assemblée eh, nationale muy Massata Samb ak Mamadou Niang kaa bi ni ñoom ñaar ñooñu le ñu ngi leen di wër ci jamono ji eh, bu ñu deful ndànk dañ leen gëstu ji ca kër kii di Serigne Moustapha si foofee lañ leen di wëri ji ngir xool ana fu ñu féete yéen kaa bi dossier suite boo teg fa mu féete ci jamono ji. Adji Sarr euh, wax na xamal na askan wi ne dafa bëgg leeral ci li xewoon ci digganteem ak Ousmane Sonko euh, xamal askan wi kan mooy Ousmane euh, Sonko Adji la woon woon ni na lu mu bëgg mooy fexe ba mbir yi leer ci kanamu yoon. yéen a bi di enquête ci xëtam bu njëkk xëy amal waxtaan bu yàttu ak njiital ACEPT ASPT ak i tamit mi yor kàdduk coalition Benno Bokk Yaakaar Pape Mawa Diop Pape Mawa Diouf wax na ci na mu gisee réew mi ak presse bu Sénégal ak wàllu démocratie euh, bokk na ci lu ko bëgg a xajamal euh, wax na ne bu ñu deful ndànk euh, ñaari mbir ñoo bëgg a gàkkal démocratie ak presse bu Sénégal di Pastef ak Yewwi Askan Wi Pape Mawa moo ni gisee wax na tamit fitnaal jëm ci assemblée nationale ne loolee dafa war a dàkk wax na ci dossier Papa Alé wax na ci wàllum tourisme ak yeneen ak yeneen mu ngi ci enquête yéen a kaa bi di la mandat xëy di ñu dégtal tegum am loxo eh, ki nga xamante ne eh, mooy eh, Fadilou Keita yene cabinet Pastef ñoom ñaawlu nañu yoon gu tëddeewul njaaxaanaay ci jamono ji ñu toll ba tax na bureau politique bu Pastef jot nañ cee janook taskatu xibaar yi ne matuwaay ca war dañ ko jël ndax réew mi làq doom dóor doom moo fi am ci wàllub yoon yéen kaabi di la mandat tamit xëy jox kàddu kii di Mouhamadou Lamine Massaly njiital UNR yekk na lu mel ne xeme ne Ousmane euh, Sonko euh, le mandat du ñu dégtal Papa Alé Niang euh, fexe ba mu génn kaso doon na lu yitteel waa CAP jot nañ ci amal te ndefalu ñaxtu démb. yéen kaa bi di enquête ci xëtam bu njëkk ba tey instruction bi jëm ci mbirum Sweet Beauté ma ngay wéy capitaine Touré wolu nañ ko altine gi ñu jëm Pastef ñoom ña ngay sàkku non lieu ci googu lépp dossier total ñu fexe daal ba. Euh, ñu seetal ca Ousmane Sonko ci euh, dossier gi nga xamante ne mooy dossier Sweet Beauté yéen cabinet ba tax na capitaine ture bu 11h jotee altine gi la fas yéene dem euh, ca bureau doin des juges. Adji Sarr mel ni kuy dëkk Ousmane Sonko kàddu yamu yëkkati moom Adji Sarr euh, bokk na ci xamle ne euh, gune màgg na kàddu ka Ousmane Sonko daan fitnaal ak naka sudul noonu Adji Sarr moo ni waxee ne kookee tey la woon woon ni bëgg naa leeral la xewoon ci tweet euh, boote bokk na ci tamit ne procès public la soxla Adji Sarr ne bu xamoon ne réew mi ay doomam daan ci ñàkk seen bakkan ganaaw bu mu kalaamee mbir ya fu mbaxana doone benn kon naka noonu du ko yóbbu fu mbaxana doone benn waaye lenn rek la soxla mooy fexe ba diggante mag Ousmane Sonko askan wi mun cee gindeeku ci lu yaatu yéen kaabi di turbine xëy duñu gindi ci ajeeg Sonko yéen kaabi ne ci procès la jëm googu lépp dossier bokk na ci tamit Adji Sarr mi wax askanu Sénégal ci dossier googeeg fa mu toll dégg gamu ne Eh, daanaka mu ngi ko cay jibbal yéenekaay bi mu ngi ñuy dégtal yi tamit eh, Sitor Ndour ma ñu tuumaal eh, viol yéenekaay bi ne nduur Ndour moomee ñàkk na ndombol tànk ga mu amoon ca SAED ndax moo nekkoon PCA ba. ñàkk uh, na ko moom Sitor nduur Ndour yéen kaabi di uh, source xëy di ñu dégtal lu aju ci forum bu ñu jagleel fexe ba ñàkk gune yi ngir ñu mun leen a aar ci wàllu poliomyélite maanaam feebaru lago ci Afrique. Euh, docteur euh, Badiane wax na ca matuwaay yañ ca jël at mu jot euh, yenn kaa bi di sursoir ne ay laaj yu doy waar moom la mu kii nga xamante ne mooy maître El Hadj laaj njiital Pastef Ousmane Sonko loole nag moo jur ñegg ñegg xol ci Ousmane Sonko ba mu fippu yenn kaa bi di sursoir moo ñu ko xëy fësal ne ay laaj yu doy waar lool moom la. Uh, kii di maître El Hadj Diouf bëggoon a xam ca la xewoon ca Sweet Beauté diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko yéen a bi di libération mu ngi ñu dégtal ñu ngi nar a soobu ci tribunal gu nar a jax lool ndax fadilu Keita man ca nar a déglu Mouhamed Lamine Bara Diop ak Oscar Diouf dañ leen gindi ci alxamisu tey ji ana fu ñu mujj yenn yéen a bi itamit di ñu xamleeg Pape Alé Niang mi ñu ne ëllëg ci ajuma ji dina jàkkaarloog juge bi yéen a bi tamit. lu aju ci Outmat Outmane euh, Diagne ak Papito Kara ñoom i tamit fukki fan ak ñett lañ leen nar a déglu Euh, waaye nag terewul Abdou Karim Gueye ak euh, Cheikh Omar Diagne ñu ngi nag di xaar mu ngi ci yéene kaa bi di euh, Libération yéene kaa bi di waa Grand Place xëyaat nañu dem ca Kër Mor Ndiaye ma nga fete ca diwaanu Thiès ak ci wàll usine bi di ab fonderie gañ fay samp te code de l'environnement àndu ca ndax saay bu fa sampo ca gox ba mun na fa jur loraange ci askan wa yéene kaa bi di ñu degtal li nga xamante ne ay kàddu Seydou Sané mi yekk lu mel ne xeme Guy Marius Sagna mi euh, yëkkati ay kàddu keroog jëmale ko ci euh, Doudou Ka jëm ci wàllum euh, Casasport yéen a kaabi di l'évidence mu ngi ñuy dégtal jëwriñ gi ñu dénk wàllu transport aérien moom Doudou Ka ak jafe-jafe yamu ne Eh, bu deful ndànk yéen cabinet loole mun na ko gàllankoor ci jéego yamu ne bëgg na ko indi ci wàllu transport aérien indi ko ci wàllu Air Sénégal eh, SA yéen cabinet de l'évidence eh, di ñu dégtal journée sans presse ca la ñu nar a sóobu ak fexe ba boycotté bépp ndaje goo xamante ne gouvernement bi dina ko amal presse bi du moyu ko cap moo ni waxe di kuréel gi boot taskatu xibaar yi lenn donc la ñu yittewoo mooy fexe ba Pape Alé Niang am afia ca na mu gën gaawee amal nañ ci tendeefalu ñaxtu ca maison de la presse euh, ni ki démb yéen a kaabi di direct euh, news xëy duñu dégtal poste ma am njiit lu bees euh, docteur ma am njiit lu bees Mouhamed Diaité Eh, lay wuyoo yéen cabinet bëgg na jooyantiwaat poste ngir mu méngoog jamono post finance sax moom bëgg nañ ko soppi mu doon banque eh, sàkku na nguur gi tamit fulaat koppar ya muy jox poste na ko yóbbu ba fukki milliards ak ñaar yéenekaay bi moo ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk yéenekaay bi di critique uh, génnagul suite uh, boote ba léegi coow la giifagul yéenekaay bi manipulation ak fake news gàcce am askan wi bëgg a xam li xew dëggantaan yéenekaay bi ne procès publique la bëgg ñëpp teewee googule procès digganteem ak Ousmane Sonko. yéen a bi di Le Soleil mu ngi ñuy dégtal dogal yi tukkee ci ndajeb conseil des ministres démb njiit réew Macky Sall euh, wax na nees mun a def ngir gën a suqaliwaat collectivité territoriales yi fexe ba euh, ñu gën leen a joyantiwaat euh, fonds public yeeg yañ leen di jox yéen a bi di ñu xam lekk la ca tukkee journée nationale jëm ci wàllu décentralisation sax dañ ko ci amal dimanche fukki fan ak benn ci weeru décembre feggoog ceek éli territoriaux yi ne fii ci Sénégal mu ngi ci la. le euh, soleil yéen a bi di Stades xëy duñu dégtal Aliou Cissé mi tàggat équipe nationale wax na ne eh, équipe nationale def na ay jéego yu mag a mag euh, daanaka am na ci jéego yoo xam def nañ ko ci wàllu mental euh, bu fekkee ne sax am na ci ay footballkat yu jotuta football ci mondial gi ñu weesu terewul itamit équipe bi groupe bi ñoom ñëpp a joxante loxo. réeroo amul seen biir la des mooy ñu fexe daal ba euh, jëmmalaat seen bopp euh, ci yeneen i jongante mu ngi ci yéene kaabi di stade euh, Kalidou bali mi jëmmal boppam ci mondial gi ñu weesu mondial gi nga xamante ne mooy wéy ca Qatar te Sénégal teel te ñib si lool yemoon ca huitième de finale yéene kaabi di suñu làmb mu ngi ñuy degtal gëstu gañu xëy amal jëmale ko ci écurie Rock Énergie diggante 2002 ga mu juddu ba 2022 Euh, la doonoon seen yéene ak jafe-jafe yi gàllankoor euh, googule écurie bu ñu nee Rock Énergie suñu xel dem ci ndem si yàlla Demba Dia suñu xel dem ci Modou mbër ma jiite googule écurie euh, jaar-jaaru écurie googeek jafe-jafe ya mu daj combat ya mu jota amal ak fu ñu nar a jëm ci lamb ji mu ngi ci suñu lamb yem ak fu ñu jeexale xetu yéenekaay yi tënk la woon incha allah daañu ci dikkat na mu gën a yaatoo mbokk yi lu nuyoo tàggoo tàggatoo jot na ci xibaar. Sarr eh, jaajëfal Isaaxa Diagne ci machine bi fego woon ak eh, Ajaratu Penda Diallo Gueye mbokk yi